mbokki kon euh, euh, ku kenn dul présenté ancien roi des arènes Manga 2 yàlla def mu teewe tey ndam lii nga xam ne gaynde indi nañ ko ngeen yàgg ko xaar muy coupe d'Afrique des nations tey lan nga ci seen bésu sargal gi ngeen tertule tout d'abord damay sant yàlla sant bu baax yàlla ndax lii mun naa wax ne Sénégal daf ko xiifoon xiifoon ay doomi sénégalais yu demoon xare ji gën ko xiif que sénégalais yi kon nag yaakaar naa ne yàlla suñu joxe ndam dañu war a sant sénégalais yi yëpp sénégalais yi yëpp di sant borom diine yi ndax yàlla def na ñoom ay kaat bi ñu doon rotal ba yàlla defal ñu sutura loolu mooy woone ne ñaan nañ ci bu baax a baax kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant di wax ne Sénégal benn bopp la soo gisee xale yi ñu mobiliser woo tey depuis le matin ñii di daw si ba ñëw aéroport ku nekk ba egsi fii yaakaar naa ne loolu te jusqu'à à l'heure actuelle ñu ngi fii yàqamte xale yi kon ñu gërëm leen sant leen di wax aussi Aliou Cissé bravo waaw ndax euh, métti woon na dégg na lu nekk te mu muñ mm. xam ne am na lu koy xaar ci kanam Euh, mooy lii bés bi tey euh, parce que mag yi dañu wax ne ku muñ rek dara dina la fa fekk waaw kon Alioune ñu ngi lay félicité di la ñaanal yàlla yàlla gën la aar. moment yi lan ci lan lañ ci jàngee lañ ci war a apprendre. leçon doon benn doo ci xàmmee kenn ku ne fa mu bokk mu mel ni ñun ñëpp dañoo bokk ndam lii dañ ko doon xaar doon. loolu laa njëkk a wax Sénégal dafa wóone ne. ñu ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ndax tey amul kii mu ngi fale amul kii ñun ñëpp te boroom xam yi dañu wax ne xol yi suñu booloon ñu nekkee benn dinaa fa def barke dinaa fa def teraanga yàlla jox nañu ko tey kon nag ñu woo askan bi yëpp ñu dellu soit seen xel yi xam ne ñun ñoo nekkee benn dëkk bi ñu ñoo ko war a defaral suñu bopp mais kenn du jógee bitim réew ñëw defaral ñu ko ñoo ko war a defaral suñu bopp. di remercier aussi le ministre des sports Makhtar boo xam ne le président Macky Sall xam na lu mu ko jox Makhtar xam na lu ko président bi jox mu taxaw ci di ko liggéey ci liggéey bu rafet te booloo ci wax ba ndam bi fekk ko ci. am na ay président yu bari ju fi jaar. de 60 à nos jours de te yàlla ci moom la dogal te yàlla ci moom la dogal ndam bi am. ndam bu rëy bi am kon nag bravo ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di gërëm surtout askan bi teewaay askan bi euh, dafa rafet la presse aussi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax sant leen parce que ni ngeen waxtaanee ak sénégalais yi ba seen xol yi ñëwaat seen xel yi dalaat ba ñu gëm équipe nationale bi xam ne suñu équipe nationale dafa war xale yi war indi coupe bi. ngeen def ko. une dernière question kon def kenn liggéey bu rafet ak liggéey. une dernière question doonoon nga champion d'Afrique ngeen yàgg dégg ndam ci seen wàllu sport. boobu ba tey football bi doon ko xaar waaye tey la ko yàlla dogal. see doom jël ko tey lan mooy sa message ci daraja gi nga xam ne yàlla defal nañ ko ak li ne kanam loo leen di ñaax ndaw yi. non lu ñu ñaan ndaw yi ñoo defal seen bopp message xam ne am nañu vision vision bi ñu am mooy defar dëkk bi. vision bi ñu am mooy defal réew mi defal jikko yi yaakaar naa ne message bi le président de la république bu mu lancé woon bu équipe nationale di dem yaakaar naa ne ñoom ñëpp dañ ko yóbbaale. yóbbaale ànd ak seen fulla seen jom seen dignité ba yàlla jox ñu ndam bi le coach aussi dëgg appel nit yi rassembler les anciens gloires du football. boole leen ñu indi seen xalaat ñu ànd ak ñoom ba yàlla jox ñu ndam kon bravo ci loolu donc jeunesse bi surtout jeunesse bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax. message boo bëgg jàllale jeunesse euh, du ma ko jàllale surtout presse bi parce que presse bi da ngeen am liggéey bu rëy bi ngeen def def ko ci sénégalais yi def ko ci askan bi bu baax a baax ndax xam nga découragement nekkoon na fi premier match yi mais ngeen gëmloo sénégalais yi. équipe bi mun na indi nam bi fii équipe bi day jël coupe bi indi ko Sénégal yàlla def loolu kon ñeen aussi ñu ngi leen di gërëm di leen sant seen taxawaay bi rafet. tàppi xol yi muñalante fexe nekk benn ñu xam ne Sénégal moo ñu ñor ñu bàyyi intérêt personnel yi ndax ñu liggéey Sénégal jërë jëf